et di rafetlu teewaay bi donc defe naa commencer présidium bi defe naa ni xam ngeen euh, président Bira Sène euh, moom moo nekk am contact euh, premier vice-président chargé lutte avec frappe. mooy Monsieur Ndiaye mi ngi aussi yëpp xam nañ ko directeur administratif bi ka ca morom bi Isabelle Sambou

moom moo yore affaire santé maanaam commission médicale bi nga xamee ni moo nekk ci CNG bi moom moo ko yore man seen fidèle serviteur maa ngi tudd Khalifa Sow def naa ni ñun ñëpp xamante nañu bu baax a baax a baax donc euh, fonction maay président commission technique en même temps directeur technique voilà euh, ñi rafetlu bu baax teewaay bi luñ doon xaar lu yàgg la tey la ko suñu borom dogal eh, donc nag euh, du ci ñun du ci yéen mais yàlla mooy aji ki nga xamee ni lu jot rek su soobaabu bu bés ba jotee mu def ko ci bés ba waaw kenn mënut a jiitu dara léegi nag ci euh, maanaam déroulé bi ni ñuy doxalee cérémonie bi euh, mooy danañu jox benn représentant bu stagiaire yi mu wax ci seen tour waaw maanaam jéem a dégager importance wu moom mooy xool nan nañ koy nan la koy dëxëñee daal pour euh, wax ci seen kàddu yéen et bu ñu paree aussi tamit ñu jox euh, kenn ci nga xamé ni mom mo représenter encadreur yi muy Souleymane Boun Daoud mu jël kàddu gi au nom des encadreurs bu ñu ci euh man mi nga xamé ni maay directeur technique bi président commission technique na jël kàddu wax ci mbir mi bu ci paré ñu jox président mi nga xamé ni moy suñu kilifa ñun ñëpp momit mu jël kàddu buñu paré ci lool nak ñu doga jël diplôme yi ku nekk ñu jox la sa sa diplôme ñi nga xamee ni ñoom parce que comme niñ koy waxee rek généralement examen moom saa yu amee dana am ñu jàll dana am ñu jàllul loolu moom lu jar a sóoraale la nag waaw donc euh, ñi yàlla def ñoom ñu jàll ah ñu jox leen ni seen i diplôme ñeneen ñi des tamit warul tax nag ñu bàyyi seen loxo wala ñu yàccaar dañoo war a góorgóorlu pour bu beneen yoonee bu amaatee formation ñu ñëwaat def pour bu ëllëgee ñu mën a am diplôme bi voilà donc sans plus tarder nous jox cadre de ki nga ni représentant des stagiaires Je dafa mel au Balade mu au nom des stagiaires. discours de remerciement de l'ANELS au CNG de lutte pour la formation des entraîneurs de lutte. donc nous ANELS par le biais nous ANELS par le biais de son président monsieur Mbaye Diallo saluons tous ce beau monde ici présent monsieur les membres du CNG plus précisément monsieur Biracène, président du CNG, M. Messendiaï, vice-président chargé de la lutte avec frappe, M. Nyambe Diop, secrétaire administratif, M. Khalifa Sow, directeur technique national, M. Sitondour, M. Suleiman Bounjob, M. Geber Djei, M. Gay Bafa, Mme Elisabeth Sambou, M. Sar, ainsi que nos camarades. Monsieur le Président, nous vous remercions, vous et votre équipe, pour nous avoir soutenus dans notre combat de tous les jours, qui est l'essor de la lutte au plus haut niveau, la, professionnalisation de celle-ci. Nous sommes sur la bonne voie, raison pour laquelle nous nous sommes encore une fois de plus réunis ici pour célébrer cette cérémonie de remise de diplôme d'entraîneur, animateur, initiateur de lutte et d'entraîneur au premier degré. Nous vous en sommes très reconnaissants. Du baume dans nos cœurs depuis que cette initiative de former les entraîneurs de lutte a été prise. Nous remercions M. Alun Sar, ancien président du CNG, qui en est l'initiateur, M. Abdou Badji, ancien DTN, et M. Khalifa Sow et M. Nyambe Diop. On en est à la quatrième session de formation. Grâce à votre expertise, méthode et organisation, vous avez su cumuler l'initiation et le premier degré pour 80 coachs. Monsieur le Président, pas de belle lutte sans formation de lutteurs de qualité. Pas de bons lutteurs sans formation d'entraîneurs de qualité. Donc la lutte en tant que discipline pédagogique, scientifique, est orientée vers la préparation des spécialistes hautement qualifiés. La haute maîtrise de la lutte est fonction de l'entraîneur sportif. Il est, la figure, est la figure déterminante pour éveiller l'intérêt et assurer la préparation des lutteurs d'élite. C'est de ses connaissances théoriques, pratiques, de son aptitude pédagogique de son ardeur au travail que dépendra le succès des compétitions. La lutte, en tant que discipline pédagogique et scientifique, est orientée vers la préparation hautement qualifiée, contribue à la promotion de la lutte sur toutes ses formes, olympiques, beach wrestling, avec frappe, sans frappe traditionnelle, la lutte féminine. Donc la formation doit être primordiale pour l'entraîneur de lutte. Pour bien maîtriser la programmation annuelle de l'entraînement des lutteurs, une période de préparation, une période de compétition, une période de de transition. Bien maîtriser les techniques de lutte, techniques de décalage, techniques de jambes. Tek, galgal, chakabal, rignan, sulli, wek, kal, fakat, plaqué, plalli, djallarbi, paqueté, gornombo, noju, filet. Technique de hancher, botti, mbot, Ni, technique d'arracher, yonou, karjepen, technique de souplesse, biterni, soukerdi, djallarbi, pour ne citer que cela. Monsieur le Président, nous vous ouvrons grandement nos portes, vous et votre équipe. Nous tendons la main et sommes entièrement à votre disposition afin de collaborer, de travailler avec vous sur cette lancée dont l'objectif principal est de contribuer à la formalisation des entraîneurs comme tenu du développement de la lutte dans le monde. Monsieur le Président, on ne pourrait terminer ce discours sans dire un mot sur l'octroi de la licence aux entraîneurs. Il est venu à son heure. On s'en réjouit énormément. Cette licence permettra aux entraîneurs de rehausser la tête, à savoir que nous sommes reconnus maintenant comme de vrais acteurs. L'entraîneur technique doit être tutelaire d'une licence régulièrement établie au titre de la saison en cours. Il doit être en conformité avec les textes du CNG. La licence permet seulement et essentiellement à l'entraîneur d'accomplir son travail dans la lutte organisée par le CNG au niveau du territoire national. Monsieur le Président, nous vous demandons solennellement d'envoyer des correspondances ou circulaire aux écuries et écoles de lutte, les informer que tout entraîneur non formé et ne disposant pas de licence d'entraîneur ne serait plus accepté par le CNG comme coach. Nous vous demandons aussi, si possible, d'organiser dans les meilleurs délais d'autres sessions de formation en initiateurs, animateurs et premier degré de lutte pour permettre à nos camarades d'entraîneurs d'être au même niveau que nous. Dans le long terme, organiser organiser la session de formation au deuxième degré pour ceux du premier degré. Monsieur le Président, l'ANEL se remercie infiniment, vous et votre équipe du fond du cœur. Je vous remercie. Euh, machallah machallah donc defe ni euh, secrétaire général def tout tour d'horizon où li ne fi jotoon na banjet. voilà ci wàllu maanaam euh, formé wu mooy andi aussi tamit nyaka mi ñàkk bañ a mën la mu waroon a def nga formé wu bu baax nga jëriñ mbër mi mu nekk mbër moo xamee ni tubaar la ba pare xam aussi li nga xamee ni moom moo am solo ci technique yi nga xamee ni moom nga koy jàngal nan nga ko koy jàngalee xam aussi yan période moo am ci wàllu planification donc yooyu yëpp lim na ko wax na ko am na solo trop bu loolu weesoo aussi tamit wax na fi li nga xamee ni mooy problème li jàggoog ak problème licence te def naa ni loolu CNG bi xalaat na ko te waxoon nañ ne dinañ ci jëm lu jot rek yomb ndax bañ koy wax yàgg na woon mais defe naa ni ci magistère président Bira Sène ci lay loolu di nekk firnde donc euh, loolu da ci am solo trop maintenant leneen li ci des mooy euh, lu am solo loo xamee ni wax na ko jëme ci ñeneen ñi nga xamee ni formé guñ leen waaw ah, loolu aussi tamit defe naa ni yéen am ngeen ci cër ñun am nañ ci cër échappe bi ANELS dafa war a taxaw taxawaay boo xamee ni taxawaay bu mucc ayib la te comme ni ma ko doon waxee aussi tamit waru la yem rek ndakaaru ndax yeneen région yi am nañu entraîneur yu ñu fay formé ak yooyu pour que ñëpp lëkkaloo de sa fekk yëf yi nekk benn donc je pense que ni à ce niveau aussi tamit am na solo trop te et puis dinañu bàyyi xel ci formation yi nga xamee ni moom moo war a ñëw pour ñeneen ñi nga xamee ni formé guñ len parce que tey jii boo waxee ne ku amul euh, nu mu formation dootoo toog ci banc dafay laaj aussi tamit yeen sen wàllu bop ngeen recenser yenen écurie ak yenen entraîneur yi nga xamé ni jotaguñu ko def ñu mën len ko defal donc yenen genre formation yu melni ay deuxième degré ak premier degré et eh, dañ ci gëna réfléchir pour xol ak ak yeen kañ lañ ko wara mëna def et bu date ba jotee ñu jëm jël matuwa yépp pour def ko donc ñi ngi remercier bu baaxa baax euh, Aliou Ba ci discours bi léegi nag ñu ngi jox kàddu gi ki nga xamee ni mooy euh, Souleymane Boun Daoud Diop monsieur Diop. Euh, jërëjëf xalifa euh, président maa ngi lay nuyu bu baax yow ñi nga yow ak ñi nga àndal si liggéey bi di nuyu entraîneur yi di jaaree nuyoo bi si seen loxo président mbay Diallo. kon nag damay wax ci turu encadreur yi ñi leen formé woon pour ngeen nekk entraîneur li may wax mooy que nii bi ñu leen di formé gis nañu ni amoon ngeen cawarte bu baax a baax déglu ngeen li leen doon wax e ñu am yaakaar ni dingeen ko appliquer ci terrain bi ndax li tax ñu formé leen. moo di duñoo bëgg làmb gën a jege nekk sport te sport moom dafa ne kan mooy entraîneur mooy ki am diplôme entraîneur li si jëkk mooy ki am diplôme waaye diplom rek doyul ñu ne am na diplôme moo ngi entraîner ay nit ay mbër waaye doyul amna diploma, diplôme mo ngi entraîné mbeur mo ngi jëmele ak kanam mbërëm bi mi koy jël fi la tollon entraîné na wèr at gis nañu ni mbeur mi mo ngi progresser bu boba ñu ni ñettel baangi non ñentel bi moy ki nga xamni joxuñu ko diplôme rek mu dem teddi dafa gën a gëstu gën a jàng pour gën a xam-xamam gën a yokku kon nag ñeenti ñooñu ñeenti mbir yooyu bu leen ko fàtte am ngeen benn bi tey incha allah dañ jox président di jox benn bi muy diplôme bi waaye diplôme bi nangeen gëm ni mooy commencement jàng commencement jàng la du du du mokkal ngeen daf leen di ubbil yoonu jàng ndax euh, formation entraîneur yëpp dañu naan entraîneur bu bàyyi jàng na bàyyi jàngale ku defa ni xam nga naan nga kaamilu jàng euh, mbër euh, entraîneur na nga xam ne booba nax nga sa bopp bu booba ngay commencé nag dootoo xam dara na ngeen xam ni dafay diplôme bi dafa li leen koy jox pour mu euh, commencé ngeen seen xam-xam commencé na ngeen commencé gëstu commencé jàng di nag def entraîneur métier moo di bala nga dem entraînement nga xam looy def doo dem ba entraînement di xaar looy def entraîneur avant muy dem entraînement xam na ni entraînement bi ñaari waxtu la lii minute yi lii lii laay def échauffement lii laay def kii lii lay def tey lii laay liggéey tey lii laay liggéey tey liggéey loolu du si bis bi rek war na xam at bi num koy defee juróom benn weer yi naka la koy defee ñetti weer yi ñaata semaine bi planification journalier annuel mensuel semestriel trimestriel c'est-à-dire entraîneur day même bu jàngul mu def ko ci cassette ni kat sama mbëri fii laa di def jaar jaar échauffement bi ñaata minute la li contact bi ñaata minute la musculation bi

te ñoom ñu gëm ni ñu gëm ndax ndax loolu ngëm-ngëm la que ni man sëriñ bi mooy sama rival mooy sama adversaire ndax li tax mooy lu ma liggéey sëriñ bi nangu ko damay xëy suba 6 heures du matin ànd ak moom ngoon ma ànd ak moom di liggéey te bu daano ñu ni bu daane ñu ni mystique bi la sëriñ bi ko daal sëriñ bi leen may mbeur mo leen may moko may victoire muy lu nga xamni entraîneur daf ko wara bañ nim koy bañee nak wuté nak tay li ñuy gis ci lu bari moy entraîneur yu bari dañoo nekk aussi préparateur mystique te loolu moom na ngeen gëm ni ku ko si def si yéen mënul nekk entraîneur ndax entraîneur dafay gëm xam-xamam dinaan mbër mi mystique bi de mënuma si dara waaye man bis bu daanee dana xam ni sama clé bi ma ko jox moo ko daan moo tax mu daan même bu nit ñi waxee moom mën ak moom dinañ xam ni amal naa ko njëriñ ndax jox naa ko condition physique bu mat sëkk jox naa ko technique bu mat sëkk prépare naa mentalam kon nag liñ leen di ñaan liñ leen di ñaan mooy que ngeen sori biteel yi du seen liggéey ngeen sori li seen nag def na am na préparateur mystique mais yéen moom na ngeen sori biteel yi ndax bu ngeen bëggee ñu fonk seen métier bu ngeen bëggee dimbali xale yi topp seen gannaaw du ñëw pour nekk entraîneur ñu daal di leen di considérer di leen jox gëdd na ngeen soli biteel yi gëm seen xam-xamu entraîneur li si tegu mooy yéen seen biir yéen ñii histoire dafa amul lu mu war a retenir mooy que yéen da ngeen war a nekk famille ndax comme ni ma ko waxee jàng bi yamul tey euh, diplôme bi pour jàng la te pour ngeen jàng il faut ngeen dajale am association association des entraîneurs de tell année wala association ngeen ut association mën ngeen a sax tuddee jël seen bopp benn entraîneur bu mag wala benn kilifa bu mag si làmb ji ngeen ni ñun ñooy promotion tel bu ngeen toogee ñaari weer ñetti weer ngeen ni ah gaa ñi ñun kat war nañu tase ji tase ut borom xam-xam si làmb mu ñëw suba ba ngoon ñu jàng rek caxabal yokk suñu xam-xam si cabaxal ca caxabal woo ku am xam-xam directeur technique bi encadré leen ngeen liggéey caxabal xam ni caxabal boo koy def nii ngay fii ngay nii ngay mel nii ngay def sa musculation bii ngay def lépp lépp beneen yoon ngeen ni ñun kët dañu woo beneen ba borom xam-xam mu jàngal ñu préparation physique nu ñuy préparer physique mbër filière énergétique yi endurance résistance vitesse mu jàngal ñu ko ndax loolu mooy tax ngeen avancé mais bu ngeen gëm bu ngeen jëlee diplôme bi rek dem tëdd nelaw du ngeen nekk mukk entraîneur ndax entraîneur bis bu nekk day yokk xam-xamam bis bu nekk donc loolu foofu lay mujjee daal ñaan leen ngeen di seen association bi na ngeen nekk famille weer wala ñaari weer yu nekk ngeen cotiser ku nekk 2000 wala 3000 francs togg añ tase fenn jàng benn technique lutte wala jàng préparation mentale woo préparation coach mental mun leen seen mbër yi mentalement ni ngeen di former ndax li ñuy gis léegi nii duñoo bëgg mu deñ jël avance promoteur préparé ba mu des weer wala ñetti fan ñu ni gaañu na loolu responsabilité entraîneur la na ngeen gëm ni mbër bu gaañoo seen responsabilité ndax si

kon nak da ngeen xam da ngeen di gérer seen mbeur diko jappalé ba du ngeen ko def lo dara dara lu koy gañ mu ko entraîneur bu ko sa mbeur gañu rek war nga xoolaat sa bop xamni amna lo def nga lo warul def wala fàtte nga leneen bu def donc dal pour ma tej kaddu gi modi di ñun de CNG bi bira seen jité may sa ndjay di président yere ñi am frappe amna ñu yaakar bu bari ci yeen yalla bu yaakar bi tass li tax du tas nag mooy ngeen dimbali ñu ba seen mbër yi respecté règle entraînement ndax entraîneur yu bëri si yeneen discipline bu ñu gisee làmb du ñaan waa ñii ndax am nañu entraîneur ndax da gis mbër bu ñëw trois heures quatre heures de temps di taxawaalu rek loolu àndul lag règle entraînement bala maa mëri bëri fii si ñun ñi may gis bala ñoo bëree sonn nañu bala ñoo bëree sonn nañu ndax dañoo yàgg si arène bi donc daal ngeen góor góorlu gën a yokk seen xam-xam pour que yëf yi jëm kanam am nañu yaakaar si yéen comme ni ma ko waxee rek yàlla bu yaakaar bi tas maa ngi leen gën di leen sant. waaw merci merci merci beaucoup euh, defe naa ni Souleymane président Souleymane wax na lépp discours bi nga xamee ni moom la Aliou wax da ko tënk dëxëñ ko. ba pare am leen lu mu leen ci dolil te loolu lépp dafa nekk loo xamee ni moom la ñuy gis moom la ñuy dund donc euh, am nañu yaakaar ne formation bi war na permettre ñu gis beneen xar kanamu entraîneur te loolu lañ ci yaakaar ñun mais yenn saa yi doxalin bi li ñuy gis ci biir euh, nu mu tëddi arène bi dëppoowul ak ak comportement wu entraîneur parce que bu ngeen dee xool sax yenn saa yi su mi-temps jotee coach bi moo waroon na jege mbër mi pour mën koo jox ay consigne pour mën koo wax naka la demee mais bu boobaa dangay gis keneen mooy ñëw moom mu dellu ci ginnaaw nijaay ñëw wala rakku baay ñëw di wax leneen loo xamee ni méngoowul ak li mu war a def fekk na moom waxu entreneur bi bu ñëwoon dana ko jëriñ lu bëree bëree bëree bëri Souleymane nag wax na ko donc ñi ngi yaakaar ci yéen pour que comportement bi nga xamé ni mom la gissé né par exemple mom lay entraîneur yi di am ci biir lamb ji mu changé baña nek préparateur mystique nek ko xamé ni moy tàggat mbeur mi ca école de lutte ba defar ko andi ko wax na ko léegi nee na da ngay gis mbër moo xam day tok pendant 4 heures de temps mu nek ko fi mu bolé ko xif bolé ko lu bari stressé wu ci fi mu ne au delà de ça aussi tamit day échauffer wu ba tàng ñu jël benn bouteille bu sedd sottiwaat ko ko ak yooyu yëpp yenn saa ay accélération brusque yoo xam ne mën na andi ay accident musculaire la prévention des blessures et cetera loolu lépp wax na ko ah, même ci cadre entraînement yi à une semaine nu mu tëdd de la compétition mbër bi dafa am neneen nu ko entraîneur bi war a tàggatee pour éviter mu am ay blessures et cetera donc loolu lépp nag je pense que comme ni mu ko waxee bu ñu demee ba ci kanam am nañu koo xamee ni moom loolu xarañ na ci mën ngeen organiser wu comme kuréel ngeen te kuréel gu vraiment organisé la ñu woo ku mel ni jéey mu defal leen ay waxtaan ci wàllu dopage parce que xarañ na ci lool ah ci wàllu prévention blessure ak yeneen ak yeneen donc daal vraiment euh, Souleymane ñi ngi lay jaajëfal bu baax a baax man nag euh, maa war a jël kàddu mais du ma ci sori ndax li ma bëggoon a wax Souleymane presque wax na lépp et dama bëgg a wax rek ne am ngeen sas vraiment am ngeen sas sas bi mooy e li ngeen jot a xam a kës néew ngeen jëfe ko ba pare jàppale mbër mi entraîneur bi tey bi ci wàllu réglement war na mën a jàppale mbërëm ba éventuellement aussi tamit mu xam naka lay taxawee ci biir géew bi ñu bañ yenn saa yi di ko dagg mais yemul foofu aussi tamit au delà mu ñëw di bëre ci nii aussi dafa am ay valeurs yoo xamee ni war nañ ko mën a inculquer mbër mi ba nga xamee ni waru am yenn comportement yi ci biir géew inchallah wax na ko nee nañ dañuy war a jëm ci cadre sport compétition bu amee il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant wala mu am match nul mais su ngeen seetloo yenn sport yi bu match bi jeexee bu dee football la équipe bële day jubal ci yeneen joueurs yi ñu saafonte ainsi de suite entraîneur bi jóge fii dem fële mais duñu ñu ancien en chien de faïence par exemple man ma meree comment wala parce que nangam ak nangam et de suite et cetera ñuy xoolante ay bëtu non newul lu rafet mbeur yi aussi tamit même chose adversaire la pour un temps bien déterminé mais bu jéxé jéxna lolo leen bolé won mais da ngeen fa wara bu ngeen paré ngeen safonté amna ci discipline yo xamné sax bala ngeen di commencer bu dé lutte africaine la da ngeen wara joxonté loxo ba paré su ngeen paré mbeur mi dafa war a dem nuy ko ci par force donc yooyu tamit ay valeur éducative yu nga xam ni yéen war ngeen koo saafonte pour inclure ko seen i mbër donc ci wàllu formation bi Souleymane wax na ko la programmation da ci am solo ni ngay liggéeyee ci at mi bëri li ngay liggéey ci semestriel ci juróom-benn weer li ngay liggéey ci ñetti weer li ngay liggéey ci weer li ngay liggéey ci semaine li ngay liggéey ci bés bi même booy dem entraînement ci bés bi war ngaa xam lan ngay defi ak mbëri te loolu def naa ni jot ngeen ko waxtaan ak ñi mais ba léegi dafa doyul waaw li ngeen am c'est spécial ah président Bira Sène gàcce ngaalaama parce que dafa leen a permettre en trois jours ñu jox leen diplôme boo xamee ni ci quinze jours lañ koy joxe premier degré fukki fan ak juróom ngay def ba pare te nga ciy boole tronc commun yéen ci ñetti fan lañ leen ko jox c'est énorme même animateur, animateur initiateur ci ñetti fan lañ leen ko jox une semaine bu me dites, dañ ko war a def kon donc nous ngi remercier bu baax baax le président euh, di leen remercier aussi parce que comme ni ko Souleymane waxee vraiment nous ñi ñëwoon nañu te àndoon nañ nag donc encore une fois de plus d'Al, man fi may terminer Moi, ñu changer xar kanam ci wàllu nu mu entraîneur ci biir làmb ji def naa ni jotoon nañ ko wax entraîneur war te ñëw sol pantalon léegi loolu dafa war a xewi ngeen di ñëw sol leen seen blouson yor seen serviette yor seen butéelu ndox et comme niñ ko waxee aussi tamit dinañ fexe def tout pour que désormais koo xamee ni tu pas formé nga bañ a am possibilité mën a toog ci banc bi te ba pare tamit ngeen jëfee aussi seen xam-xam

Euh, merci membres de bureau yu tok fi yëpp seen présence euh, rafetlu naa ko lool ndaxte euh, da ngeen fi ne la formation des arbitres lu am solo la ci dispositif yi eh, pardon des entraîneurs excusez-moi dafa am solo ci suñu liggéey Mais dellu gërëm sant entraîneurs yi fi nekk tey seen njiit di mbay Diallo ma di ko ci gërëm di ko sant ndaxte taxaw na ci dox ci wax ci ci Pastefam ak accompagnement bi ko Aliou ba accompagner ci mbir mi ci la li amee kon bu nekkee seen njiit il faut que ma nuyu leen sant leen seen tur yéen aussi les former maanaam ñi nga xam ne ñu may former ngeen nekk ay entraîneur yi ñu leen di gërëm ci ambition bi ngeen am ci lamb bëgg-bëgg bi bëgg a nekk technicien làmb euh, loolu ab cofeel la te loolu dañ koy dañ koy gën a rafetlu ndaxte soxla nañu yokk suñu euh, carnet d'adresse bëgg na yokk également suñu banque de données en matière de licencié surtout en matière de technicien man la rek ne ñu toog ci table bi yépp yéen entraîneurs yi da ngeen leen di soxla régulièrement régulièrement war ngeen leen soxla parce que dañ leen mën a apporter un plus docteur Dieye ma la toog war ngeen a mën a un jour ngeen woo ko ne ko doc dañ la invité suñu entraînement lii ndaxte dañ bëgg a door nga bëgg nga ñëw xoolal ñu tension xale yi sportif il faut xol bi baax d'abord kon mu leen dem bàyyi damay dinaa gàttal nag mais li ma ci mënul wax bëri na torop dama koy waajal ndax tey ki mu war a bëril dafa diis wala dafa woyof lu mu war a lekk ba poids wàññeeku wala lu mu war a lekk pour sol doole loolu yëpp war ngeen koy au moins di ko woo alors su ma ne ñii ñëpp c'est parce que dama tànn kële rek jéey xalifa ci wàllu entraîneur ki la former war nga léeg-léeg nga jox nga téléphone nga ko man lii de laa bëggoon a jàngale tey xale yi laa bëggoon daw nga ñëw nga assister soutenir ma mu ñëw mu fekkee léeg-léeg mu jubbante adroitement léeg aussi mu jàpp ci affaire bi kii bu ndaw Ndaouda Diop xam nga moom moo nekkoon directeur haute compétition ministère des sports du Sénégal donc te moom aussi entraîneur arbitre judo la judo ak bëre su rente wuñu c'est international de judo nekk aussi formateur kon woo ko ne ko mbër mi pied droit bii lay jiital te su ma waay pied gauche lay jiital te bëgg naa clé bi xam naa dina ci mën dara mënu lax nag koy enclenché ba mun ci am dem donc c'est vous dire kii may sa njaay pareil c'est un sportif am lu bëri mu mën a apporter Ndiame Diop noonu lu bëri lu mën a apporter Isabelle Sambou c'est la championne d'Afrique neuf fois neuf fois championne d'Afrique championne du monde championne olympique koo xam ne ñëpp ko ameel njukkal léegi moo nekk fi ci salle bi di entraîner xale yi kii mun lañ jox lu bëree bëri Isabelle bi lu bëree bëri woo ko benn bés ne ko kaay jàpp lañu Cheikh Sarr mais ngeen dem oo ko ne ko Cheikh ñun kat suñ combat bi semaine bii la te ñun kat ci wàllu organisation bi suñ taxawaay laa ba gis naa làmb jële ngeen tere lii tere la te sama mbër dama bëgg vraiment bu ñëwee rek mu tegu ci yoon loolu dafa am solo formation bi dafa door mais jeexagul bun ak Kaliphone wax nañ ko ci neneen mais maanaam eh, formation bi door na mais jeexagul chaque jour da ngeen di jàng képp kuy jàngale nag chaque jour da ngay jàng alors ma ñaaxaar leen nag léeg-léeg xam nga nga dégg ci yeneen discipline yi soo demee par exemple euh, Premier League wala leneen gars yi di xëccoo yenn entraîneurs yi Zidane xam nga fi mu ne ñu bëri ñu ngi koy consulter pour jël ko ci seen i équipe yi mais nun gisagunu fu ñuy xëccoo entraîneur de lutte ñu bëggoon nag ci yéen ñii mu am écurie yoo dañuy di xëccoo ne kaay nga tàggatal ma sama mbër mi wala kaay nga entraîné ma sama mbër mi am ngeen capacité yi am ngeen compétence yi lii ñii jox ci xam-xam war ngeen mën a yegg foofu il faut ngeen def di coaching gagnant coaching gagnant mooy damay entraîné suma mbër mais dafa war a daan dafa war a gagné alors bu leen événement di yóbbaale entraîneur bu la événement yóbbaale rek motogol li nga doon parce que entraîneur warul affolé war na am toujours personnalité bi personnalité dafa commencé nag ci na ngay duggee ci làmb ja sa colin sol sa blouson ñëw ak sa jumtukaay ak sa jumtukaay entraîneur dafa am jumtukaayam entraîneur waroo ñëw te amoo chrono waroo am chrono mu waroo ko ñàkk ndaxte sa mise en train mbër war nga ko chronométrer mais da ngeen di bàyyi xale yi ñëw dugg fii

nga jóg def 3 minutes tour et cetera boo toogee lii nga dem bàkku boo bàkku nga ñëw toog jëla récupérer na xol mooy athlète xol mooy athlète yooyu je vois que ñii ni duñ ko def te nag bu leen nangu it seen élève parce que kay entraîné aussi nekkatul sa naataango sa élève la bu leen nangu mu dominer leen bu leen nangu mu dominer maanaam seen personnalité yéen a ko moom mais yéen a koy sol ci xale yi moo tax ñu jox leen ay diplôme entraîneur donc euh, war na am comportement bu muy am ci arène Souleymane wax na ko léegi Khalifa na ko entraîneur yoonam nekkul ci mystique yoonam nekkul ci mystique ñu bëri nag dañuy xool gis leen gàdd ay butéel di sol mbër mi ak yooyu te pourtant aménagé nañ leen lépp dañu ne mbër mi manager moo ko indi yaa ko tàggat fële de waaye manager moo signé contrat bi kon moo ko indi ci arène bi bu ko indee it moo ko indi bi ci enceinte bi fi muy bëree mais bu duggee foofu mission jeex na entraîneur mooy jël mbërëm mbër taxawal bul dem taxawal nangam arbitre woote taxawal balaa moo dem nga kii ni mu ñëwee ni ma gisee nii lii la indi na nga defee ni defee ni pare nga dem toog entraîneur waroo ñëw te indiwoo ñàkk sarbet non da nga indi sarbet waxuñ la nga jël ay blouson ku ko def nag attention da ngeen di am les seen statut bi nañ ko défi redéfinir ku am na xam ne ay sanction dana peese ci indi blouson di ko fompe non d'abord du respect sax sa mbër mais indi sarbet bu set teg ko fii mbër mi ñaq nga fomp ko mu bëri tuuti nga jox ko ndox mu naan pas trop mais mu naan au moins tuuti mu dem mi temps jot nga téye loxo yi di ko maaseel di fëgg loxo yi ak yooyu pour mu amaat xam nga leewatoo nii balancement de bras mais dafa laaj énergie da ngay gaaw sonn mais bu mi temps jotee war nga mun a loo def ci moom maasewaat defaraat kii di wax ak moom en même temps fompal ko kanam gi moom day taxaw rek warul nekk di fomp parce que déjà am na énergie yow énergie sakanal ko ko na wàcce loxo yi wala nga téye di ko fomp di ko defar et cetera tout ça là di ko upp même bu laaju upp upp ko ya entraîneur di ko wax sa dem bi léegi baaxul de yóbbu ko bi ci boori saako yi mais bu déclenché rek jël ko xam nga yooyu mooy seen rôle mais bu fekkee da nga bëgg bàyyi noonu rek muy demee noonu xaritam wala mu dem ba sonn te yow dafoo dara ci moom loolu aussi c'est pas bien loolu kon dafoo sa sa liggéey euh, ñii wax nañ ko léegi gaañu gaañu yi ñuy constaté ci avant combat mu des une semaine wala dix jours wala un mois ñu ne diw gaañu na xam nga li tax ma ne leen léegi euh, njàng bi da doog ko door même couverture saison amna na entraînement waru len ko def xam nga am lu ñu la remise en condition physique manam dama ngeen vacances dama ngeen congé saison bi tëj ñepp ñëpp a ngi toog ñu ne ñu reprendre entraînement au départ am lu ngeen wara def manam il faut ngeen xoolaat xol yi defaraat xol yi ba nga xam au moins am lu ci nekk amna période bu ngeen wara def sen endurance am bu ngeen période ngeen def seen travail foncier amna période ngeen def sen technique. am na aussi internet dafa am li ñuy wax dominante maanaam tey comme wax na léegi ne galgal tey moom galgal la ñuy def rek wala caxabal wala jël mais yooyu say technique yoo xam ne doo ñëw rek nii non da ngay ñëw ñëpp mbëri ñëw tey lii la song la song pied droit wala song pied gauche song pied droit ngeen def ko entraînement lëm ñooyu loolu mooy sol xam-xam ci xale yi donc yooyu il faut que ngeen euh, su ngeen ko bëggee ki ko bëgg mën nañ def demande bi direction technique national nañ defal benn benn planning n'est-ce pas d'entraînement bo xamné sax da ngay waajal amoo combat wala planning d'entraînement bo xamné da nga am combat dans 3 mois ou bien dans 2 mois extra Yoyu mën nañ ko dafa jox len ko su ngeen demé ngeen déroulé té su ngeen soxlaay tamit ñu ñeu appuyer len. alors euh duñ ko du ma paré nak té waxuma ci JOJ Jeux olympiques de la jeunesse Sénégal lay amé en 2026 ñu ngi joxé a lettre circulaire euh, écurie Ndax té bëgg nañu ñu commencé duggal seen liggéey xalé yu ndaw yi ñu am fukki at ak benn fukki at ak ñaar fukki at ak ñett ñu commencé leen tàggat góor ak jigéen ndax té dañuy waaj comme dañuy waaj lu ñëwagul il faut que ñu commencé faggandiku ndax dañ bëggoon après écurie bu ñu tàggatee xale yooyu fi léegi dur su fekkee ne sax fi léegi fin de saison la ñu def benn championnat de lutte olympique championnat de lutte beach wrestling yoo xam ne vraiment xale yu ndaw rek ñoo koy bëri te boobaay tamit dañ ko jëmmal def ko événement bu rëy écurie bu nekk ñëw ñu def ko benn championnat fii bu ñu defee ay championnat régionaux it ñu def championnat fii à Dakar écurie bi nekk indi ay mbërëm bu dee ñaax la wala ñett ay xale yu ndaw ñoo xam ne titre ndaxte eh, état bi mu ngi defar par exemple eh, double carrière dañu bëgg yegg ci sélectionné ay goné yo xamné dañ leen di jël ñuy jàng école di jàng également bëri ño xamné dañ leen di yoon donc loolu ngeen def ko seen xel jëm ko commencé ca écurie ngeen nekk wala fa ngeen nekk di xool seen détection pour am ay xale yu ndaw yoo xam ne ci écurie bi vraiment ñu bokk liggéey bi euh, diplôme yi ñu leen di jox nag ñu dañ ka fulal diplôme yi ñu jox li a jox seen attestation yi lu am solo la ci ñun lu am solo ndaxte liggéey bu nekk dañ koy sanctionné ak raaya li raaya la yéen a ko moom ndax yéen a ko mérité bu ngeen ko seetloo ñi def yépp amuñu jàlluñu parce que dañoo def liggéey bu professionnel am na ay journée de préparation ñu jàngal leen jàngal leen am journée bo xamné dañu def notation par notation def évaluation maanaam ñu seet ñan ñoo war am diplôme bi ak ñu ko war a ba nu ko sété ñu gis ne yeen ñi fi dajé tay mérité ngeen ko war ko am parce que seen formation seen liggéey woné nak alors amna na ñoo xam ne dogal na amunu mais ñu ngi waajal yeneen session bu président Mbaye Diallo bu fekkee ne recensé na ñoo xam ne des nañu defaguñ seen formation

Il ay formation ay arbitre génération entraîneur alors donc comme bi sumbon nako liñ Ils def continuer ko am fi xam soxla formation ñeneen leen former xejna Ils yalla rek xam mais quand même continuer rek taxawul ndax sport ñëpp di eh, DTN Khalifa merci beaucoup naa lay gërëm di la sant hein, yow personnellement ndaxte aussi yaa lii nii ñuy def nii ci sa commission la bokk la commission technique su ngeen déggee nag commission technique nag arbitre ci lañ bokk arbitre ci la euh, entraîneur ci lañ bokk DTR yi yëpp nag ci réseau ci lañ bokk ñoo ñëpp xalifa mooy leen moo leen coiffé moom mooy ki nga xam ne moom moo jiite lii tax ñu daje fii tey di gërëm membre du bureau yi fi nekk yi parce que lii waxtaan nañ ko pour won leen nañ ko fulalee euh, wax naa ne ko réunion de bureau du benn yoon du ñaari yoon benn nañ jàpp ab bés pour que ñu def évaluation yi jàpp bés pour jox leen euh, diplôme yi moo tax ñii ñëpp dagg seen yitte te dimanche la mën a toog uf seen njaboot mais dañ ne non non non lii il faut que ñu dem teewee ci remise de diplôme yi nga xam ne xëñ na xat-xat yi ak ministre des sports li mu newoon temps yi yëpp ci Thiès ak président de la République nekk foofu mais rafetlu woon nañ sax mu ñëw teewee seen liin yi mais nag.

ñi fi teew ak ñi fi teewul yépp képp ku ngeen ci soxla te yaakaar ngeen ne kii mën na leen andil njëriñ ci seen wàllu liggéey su ngeen ñu ko waxee incha allahu rabbi dañ ci dox ay tànk yoo xamee ni ñoom dañuy ñëw gën leen a jege tey jii liggéeyu président Bira Sène mooy fexe ba li ngeen yaakaar ne dañ leen a sore ñoo ñu jege leen mooy muy commission règlement et discipline muy commission arbitrage ak leneen ak leneen ak leneen wax na ko ci Meissa Ndiaye wax na ko ci président bu ndaw même ci domaine arbitrage sax ci domaine règlement ci domaine leneen ak leneen ak leneen parce que ñun tey jii bu ñu fi nee yéen a tax ñu ne fi ak mbër yi ak amateurs yi ak ñeneen ak ñeneen donc dañu war a fexe ba lépp rafet waaw te am naa yaakaar ci at yi ñuy jëm ku amul diplôme mu entraîneur mën naa yaakaar ni dootu ti ci géew bi waaw waaw c'est-à-dire dama ko rek dama ne ci sama njort laa wax de des na tuuti amatul diplôme entraîneur waxuma la sax seet naan làmb waaye doo dugg sax ci biir làmb c'est à l'ordre du jour raison pour laquelle gis nga équipe président Bira mi ngi xalaat licence te lu la ak ak ak président ñi nga xamé ni ñoo dess da formé wuñ leen ñu fexé ñu gorlu pour que balay gaay di tëj buntu bi waxuma tëj buntu bi sax duñ ko tëj mais dañ koy ubbi rek dañ koy delloo waaw mais bala ngay dugg da nga wax lu set wecc ndax dootul yombati ni waaw niko ko bi ra defee ñetti fan rek ngeen am diplôme dem seen yoon dootul yombé non dé parce que ñun ci sport bi li ñuy yëngatu kérok ma ngi dem passif def fi ben formation animateur initiateur 25 000 lañu joxé yenn saa yi bu dee premier degré 50 000 francs ou 75 000 francs parce que le diplôme est moo donc nous bàyyi ci xel bu baax a baax ñi nga la président wax léegi ñi recenser rapidement pour ñu mën leen a defal formation lu mu gën a gaawee ba sa fekk mais également ñuy leen di xamal rek ne buntu CNG tëjuwul ndax ci seen naataango yi am na kenn koo xamee ni il a été nommé entraîneur national mu nekk Lato Ibra Pay Sagna jógal ngeen gis ko kon donc ngeen xame ni promotion bi yemul rek ci yeneen yi nit mën nañu xool ci yéen ñi gën a xarañ ñu dénk leen ay ndomboy tànk

te tey entraîneur entraîneur ba weer am wéccit woo day dugg ci poosam wala bu combat am donc loolu dafa am solo trop donc loolu tamit lu jar a xool lu manager bi gis da ci gis boppam bi ci gis mais entraîneur bi nag da ci gis bu donc loolu daal laa amoon lu peut-être xanaa ma jox kàddu gi monsieur Ndiamé Diop. Euh, pour euh, la remise des diplômes diplôme animateur initiateur la et Donc l'an 2000 et les 16, 17, 18 mars s'est tenu à l'arène nationale les examens pour l'obtention du diplôme d'entraîneur initiateur, animateur initiateur de lutte. En effet, sur un effectif de 36 stagiaires inscrits, 35 ont été composés, et un absent enregistré. Le jury s'est réuni en délibération pour examiner les différentes notes obtenues par les stagiaires en théorie et en pratique. À l'issue de cette délibération, les stagiaires dont les noms suivent ont été déclarés admis par ordre de mérite. Il s'agit respectivement de donc pour initiateur, animateur. Le premier s'appelle Ahmed Konate. On va, procéder, non? Ah, Konaté. Félicitations. Hein? aussi liggéey noonu la. am euh, léegi aussi dinaa yeesalaat ngërëm ak cant ministre des sports moo oo léegi nii nii nii dégg na tàcc yi mu leen di félicité waat den di encouragé li ngeen di liggéey nee na yëg na ko te incha allah occasion du ñàkk xëñ na dana gis ak ñenn ci yéen. mais vraiment je suis développement sport merci pour ça. donc le deuxième Abdoulaye Mendy. il est absent troisième Khossan John quatrième Alioune Koka Diop quatrième ex aequo Youssoufa Diop jóobeen dañu garaaw de jóobeen dañu garaaw de <laughs> no bàyyi ma dem ci sixième yi kon Sixième exéco aequo, Amat Sixième ex aequo, Jeannot Diallo. Sixième, sixième, sixième toujours. Sixième ex Ousmane Si. Sixième exéco aequo, Tafatine. Sixième ex aequo, Tcherno Alpha Chomban. Sixième ex aequo, Cheikh Mohamed Fadel Ndiaye. Donc le reste, mën nous le seen diplôme Donc le reste après dans leen jox diplôme. On va passer directement à, au récipiendaire pour le... Adama c'est... 16e execo Mamadou Lamine Diatta. 16e aequo Malik Chomban. 16e aequo Madli. 16e ex aequo Babacar Nying. seizième ex aequo Mamadou Fadel Ngom 24e Babacar Gueye hmm? Yoro Sène et Badien. Hassan Ndiaye. Mamadou Gueye. Serigne Baye Diop. Mamadou Mustapha Faye Mamadou Diop Orval, Babakar John Ibrahim Bay Badafay. Ahmed Jan. di Cham. Ibrapai Sanya. mbay fay Mbaye Faye waaw du mooy jël nii Mbaye Faye Félix Gomis ñolu jëlee ci andam yu bëree bëree bëree di leen di jox nak di dajé ci yeneen session de formation ak également ci yeneen combat de lutte yeneen gala ñu xool leen observé alors euh, ñi ci gën a liggéey daa leen jaajëfal ñi nga xam ne tam dañoo sooxele dañ defal ay session de mise à niveau parce que loolu mooy mbir mi bu fekkee da nga ginnaaw si il faut ñu aar la formé waat la maanaam la pour que ngay sa niveau gën a kawe donc DTN merci beaucoup euh, la formation comme la remise de diplôme a été vraiment bien organisée et bien faite et du courage jërë ngeen jëf merci Làm ba